seen le promoteur ah. ba jaali seen sama xarit la. comme maam ak Pape Ndoye nii la defoon. doomu mbay guy gi ak Paul Mbow. comme maam ak Pape maa leen nuyu di la si. ñëpp interview nañ ma ñëpp ñëw nañ ci man mais sa boso ma dàqal boo gisee sa boso ma dàqal da ngaa dëgg boo ne doomu yaay mbay guy gi ak Paul loolu am na yéen ñaar rek laa may heure bu leen neex sa sama kër te du ngeen ma tàggu te yoo xam nga te dama xëy heure bu leen neex ñëw sama kër te bu leen ma tàggu champion waaw loolu moom yow yaa baax bëggal ñu sa bopp ñu bëgg la. waaw loolu moom am na maa leen sant bu baax di leen gërëm di sant waa Sénégal ku fi di nuyu waa Baol TV internet yi di seetaan Baol TV yëpp di leen wax nag Baol TV moom suñu suñu yëf la ñoo ko moom ndax yow loo bokk bokk nañ ca na nag suñu frère Assane mbokkum Daaru Salaam nekk ci voilà. tey projet yi la tey du ma ne bu ndax jéey tëgg na fi làmb bu ne. jëy si euh, Gris 2 la jógee. ah ak ah, est-ce que ko ay yoon Jackson. parce que tamit xam nga nee na ma Jackson mbër la boo xamante ne euh, sama kanam mooy taxawal nañu Riis Ndiago ak Tafa Mbër sama kanam mooy euh, année 2022 ñu teg 5 journée 5 journée yi nag day ànd ak kalaaf 8 mbër yu gars yi yaakaaru lañ ciy indi incha allah delloo mbaat te naa la. non li ñu koy jógee bëri na xale. indiwaat te ko su deful dara nga jox ak ñi nga xam ne ñu ngi waxtaan ak ñoom. ngir làmb jëm ca kanam ngir Sénégal gën a kontaan loolu daal. liggéey daan waa ji dem ci kàttanu yàlla ok. waaw jàmm gën parcelle ñoom ñaar dañoo yàgg bëggante làmb joo xam ne nag vraiment maa ngi ciy remercier bu baax Fallou Ndiaye euh, sama rakk jooju euh, bu baax a baax a baax li tax ma di ko ci remercier bi nga xamee ne bëgg naa combat bi dafa jël solu dàllam def ci lu mu mën ak c'est la première fois am Dieye wax mbër lépp Abdoulaye ko seere di ko remercier bu baax Abdoulaye ak Dieye production. lii lan ah, maa ngi koy sant bu baax baax a baax. da ngay musuma xool lu mel ni ci lamb. waaw lii dafa façon soo mais adduna noonu la adduna noonu la yàlla yàlla defal jàmm. yàlla na encore une fois. jërëjëf maa la am nañu yaqin ne mois de mars eh, réeré bu soobee yàlla ci combat yu mag yi bu tàqale ko comme avant ba mu ngi bëre si euh, temps bëre sama xale foofu ba léegi bàyyeeku ma waaw incha allah ba léegi tant que tëgguma Ama Baldé Siteu du ma am jàmm eh, waaw eh Laurent Ndiago la Ndiago or wala Ndiago përëm wala Ndiago jama Laurent doon ta waaw bëri ay mbër lañ. wa zamze billah xanaa Laurent màgg naa. yee. abugu papa. keeso meeso reeso. tàngal mant fereeso. gun fan maar xaan in cërërëw. <laughs> eh loolu du anglais dara yow moom jàngoo. ziar na ma manit. jël sama jël combat. bi ñëpp doon xaar diggante ma xale parcelle bi. Tapha sax soo demee wala ngeen dégg wax na soo ñëwee ma waxal la Liss du mbër bi wax man maa bëri wax di wax Tapha Mbeur daa bëri wax waxa tax nit ñi ko xaay na na teew. teew na na sax su waxee laa la wax soo leen ma ko indilee ma tontu ko nee na yee lan la wax moom góor du yaram góor. loolu du wax. yow du yow doo yërëm góor. góor yërëm góor. moom ba mu daanoo amul ne oo oh, ndeysaan. waaw comme yërëm nañ ko wala yërëmuñ ko. yow laay bàyyi gaay yërëm. góor du yërëm góor. si ba muy dund. ya axi góoram. mais ku dee ñu yërëm la. waaw wala nga feebar ba sonn ñu ketal la yërmande mooy tax ñu lay waaw ñaari gaa daa dégg nag. déggam xaayul. Eh, yow sa bos daa ñëw. lu ko dëbb moo xam moo xam. ah zana pili au grand. lu ko dëbb moo xam moo xam moo xam rumbax. amul tas wala. lu ko dëbb. moo xam lu ko. lan ngeen di indil Tapha Mbeur. dina mel ni de moo loolu noonu. na waaj rek pare man. bëggu ma dina mel ni dina mel ni day mel ni kañ gu dëgg. day mel daane ku mën morom yooyu ma naan ku mën morom rocci sa put. ku mën morom rocci sa put. rocci eh, ñu jaar sa di ko xëcc. ah. day métti la demee te moom duñ ko mooy de. yaa ngi leer nu mu demee. non xamoo ku leer. leer nag damaa tilim ba ñaaw. damaa amul oto de du ma bëre. waaw. non non instant maanaam man damay waajal làmb dafa métti. booy dañoo sonn man du sama côté man booy laa yërëm. man yërëmu ma sama man dof laa. ñaaw. man yërëmu ma sama bopp. lépp xoolal. xale jigéen ñi gisuñ sa ñaawaay. Eh, ma benn jigéen vocal ma ma tontu ko mu ne ma sànni ma say photo ma sànni ko mu ne am Laurent mais ñaaw nga dama ñaaw ba man ngeen ah, moo loolu de. la de dañ ko bëgg de. teewal liis daar ma dem dee léegi. nga dem faatu. damaa dund bi neexee. damaa ragal dee ma. doomu ndey Sa Thiès ak i noonu. yaram tàng na de. ba xam du ñam dund ñam dee kulu nax si saa na xarit moom. kulu nax si saa xarit moom. xam du ñam dund ñam dee. dara ñu koy ragal ah. waaw moom sax naa la. waaw dund rek. dégg nga mën naa la sax sax ko rënd yow dundal man ma dee. sa tempore. anglais moo la wax sa tempore. yow dundal man ma dee. anglais bi ñëw naa ma Dia livre de Sénégal yàlla ngi Sénégal loolu xel a koy dégg. tuus bu bees. ay Sema Fodé ay alliance Gundal Gan borom lu ne pax. di dagg di wëcc. oh yëpp a ngi fi. daa war a jëf jël zat waaw gaa yi ngi wax rek waaw mais ñun ñoo ñuy entraînement rek ay xale lañ defaguñu dara nga bëgg a euh, ki nga xamante ne mooy buus bëgguma ko de maalaw seeraas rek daf may message maalaw seeraas kan la daan moo jàll mu ne daf may message loolu ndam la soxlawu woo ne ma dama bëgg a may sax damay bëri. waaw. am nga fit nag. dootuma waxaat ak man ragaluma. fu ma jëm bu dee dee ree man yàlla naa fa dee. na waaj fu mu xam nga dem. maa lay fay pël bu rafet ci loo ne. waaw sama papa sama xarit. waaw dooy fo de kenn la ci man kii. mukk ci àdduna. bu dee dëgg kay yàlla na yàqu. bu du dëgg yàlla na yàqu. non gisagoo dara. am na lu may waaj sax loo xam ne. yàlla na sottee jàmm rek. bu dinañ xam ne liggéey liggéey bi liggéey bi dëgg foofu la. waaw. Ah? ah ah mais ah. bi rek bañ leeral dara rek yàlla baax waaw. incha allah li ci kanam rek kooku aw ma jotam fi mu ne nii du ma amoon benn taam. maa njëli ma war na ne ko war mu ngi wër di wax rek na wax man maa njëli ma war ba suur ba incha allah. non am ah, bu ma nee paa mooy lim ma mag rek. mais la champion loolu moom mu neex ko mu naqari ko force la force. lu mu ci bëgg rek. mën nañ koo dóor sax mu xalangu. point. nee nga kii li ma ko dencal moo bëri bu mu xam lu ko dul xaar. <laughs> Ah, affaire la. non action la. <laughs> waaw kay. daa tooñ samay kilifa samay kilifa. da leen xas quoi moo tax. Ah. waaw. mais bu dee signature nga nga yem ci man mbër mi mais laal laal Aziz laal Dieye samay xol la laal ñi nga xam ne samay xol lañ. merci ñooñu la laal nag. ah ruube yooyu nag dina ko mujj nag indil musiba gaañu ba may jooy. <laughs> jooy nga laaj mu ne xaw ma lan la. billaahi wallaahi après benn jooy rek nga koy jooy doo jooy ñaari jooy sax mu lay benn jooy rek mu jeex. Zarko Boy na yàlla na yàlla may wér daal ak fekke ba nu am data ak ba nu xam jour bi ni bëri incha allah ma leen lu may wax ak moom fi nii. nga liggéey daal laay def fi mu ne nii. nga wax waaw mais dama ne bu may wax ak moom day fekk ñu ne ma bés sangam ngay bëree ma mën a wax ak moom. si kan la nekk bi. na ne ci li ko ne na ne ci li mu nekk rek ma nekk ci li ma nekk. waaye ah, ah, ku nekk ku a ñor na bëri booy ñor na bëri ñëpp ñor na bëri léegi maa ci loolu sant sa sa perse dégg nga waaw naa ko mais dégg naa lépp ngay seetaan nag perse maa ngi saa saa bi waay saa. mbër rek a ko sañ mbër rek a ah, normal quoi. mu moom man ay réew mi may jàpp sax moom nee na dix fii bu ñu mën bëre ans du moom puusul paasul jéemul def dara. comprendre nga li fi am yëpp maa fa def. yaa def lépp lépp cabaal ay cabaal yoo xam ne mooy loolu. daa diis ma kan moo diis. diis ku diis yi nga muy dañ du mën a dañ. indi sa loxo joxaat ma sa beneen loxo ma duma la loolu dafa yomb. si gàllaaj foo ko yóbbu woon. loolu yëpp waxu yaaxa der la. nga ni sa. <laughs> non man non man maa ngi. Burkina waxal foo demoon. non rek. waaw. non man gisuma ne mystique dafa feeñ xam nga laa gis ñàkk a confort ma fa feeñ ci moom. loo koy wax moom loolu. mu liggéeyaat rek am ne koyoon sa daan nga wàññi ko dara mu taawoon ma daan gi a si la yëpp a succès li mu def nii. maanaam yow bañ lay dëkk dañ doon dëkk jëlee ni di nga dëkk sa biir koñ nga sonal ko mooy loolu nga ñëw si làmba mu mel ne dañ la wecceku loolu mooy loolu. yaa ngi wax de yaa ngi wax de. Ah. da ngay ma la xanaa. yaa a yaa parewul. xam ne la woon bu ñu simb ko. ñëpp dañ ne moom ëpp. ngi yow sax ne moom moo la ëpp. yaa eh, wax yaa wax loolu. Ah? waaw am na bu ma digganteel. waaw. léegi ñu ko laaj déggante a léegi. waaw moom xam nga sama père la. te leen fee day wàññi wërsëg xam nga moom mooy sama promoteur. parce bu ma demee ba seer moo ma seer. waaw ah, noonu la demee. waaw noonu la demee. kon léegi ñu ngi ñu xaar saakaar. ko duma laa bëgg de. indi saakaar liy def def ma métti. bari na li si waroon jàpp yëpp jàpp nañ saakaar. saakaar. waaw laa bëgg de. bilaay walaay. yow ñëw nga merci. merci jaajëf eh, félicitations. merci mon frère na gaa yi jël si kaw. jaajëf. ah. bëri histoire. ah wax de. la <laughs> waaw. Yérim Mayo la. fan ngeen jëm ah. waaw ñu ngi bëgg ñu ngi négocier ak Jamaïcain nag pour le huit bi balaa Coupe d'Afrique bi di commencer. si combat ngeer bu sab di remplacer mobile 2 ak Bour waaw ñu ngi négocier nag Gambien waaw moo ko Ibou Ndiaye Obali waaw. Euh, Gambien. waaw mu taxaw. rente de Dakar. ak euh, bébé guy gi Agogo Pakola Ousmane waaw Pakola waaw ak Agogo Pakola Balde ñu ngi koy négocier ak euh, Ousmane Gandigal waaw euh, ñu ngi ci ay combat so combat yu neex. ñu Pulo Okata ko wadaani. mi na billahi ko gonga. billahi. Ah, mi maa ngi niin comme comme yëri ma yaraani debbeere ma baccaani boromaani nee nañ ko cubalal nooyu baabam bukki nooyu pël waaw léegi nag coow li na waaw non coow li bëri na coow li balaa ñuy ñëw ci coow da ngeen koy jox adversaire wara day am am na adversaire am ba moom ngeer bu zap waaw moom ngeer bu zap changé nañ ko adversaire ngeer bu zap da ñeme jël ko mobile ñëw na le retour de mobile. nee na lu waay waxoon na nga ca def. Mpël yaa gën a xam ne sama wax day sol tubay. sama wax day sol tubay. loo waxoon li ma waxoon. dinaa ci delluwaat. amoo ragal. lan laay ragal. man Pape Sarr ma ragal. déggoo dama la sama sortie man. bu ma mënut a def ak site. ak ay audio laay boole. waaw. dama ne la. samay sot sama tuur laay xaar. waaw Pape Sarr rek laay xaar. waxuma la leen tuddee gawar de Pape Sarr man naa dégg. buñ tuddee sa tur bal ba tàkk. ma tuddee sama tur ma génnee waxande wax. waaw xam nga daa am yor duusan lañu wax. man waxande laa génne. léegi moom contrat bi day jeex seen diggante wala ñu wax wax dëgg yàlla waxu mobile 2 moom. munu ma cee sori mu ci seen CNG. voilà mais li ma lay wax de sama yaram penalty bu ma mënta teg Pikine naa ko. parce que dañ doon waxtaan am solo te musuma cee yar nag xar mu jaasir am lu may tekk de man aw ma xar mu